am déet waaw Cheikh Ibra Fall ngoog boo bai fal. rek ñu ne bai fal. nga saaga ñu ne Baay fal nga wax lu bon ñu ne Baay Fall nga salte ñu ne Baay Fall nga tilim ñu ne Baay Fall nga fal. ñu ne Baay Fall nga ngay toog ak naan ci mbedd ñu nga man kilo akub këll ak kaajay ak yooyu tànk ak yooyu loxo lambar lambari yi tanaa lépp ci bàmba ji la te bàmba ji lu baax ci nga bokk lu bon génn nga ci ñu ne xoolal Baay du